ci yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Adji Sarr mu Pastef fu ànd ak Pastef di nit li ci Pastef tëddee yi mu ne moom la ko njiital parti Pastef def loolee daanaka moo nekk ci mbooleem yéenekaay ñu xëyandool ubbi l'Observateur journal bi nee nañu bi coowal mbës mi jollee ci réew mi ak léegi gulee démb ñu gis Adji Sarr moo bi gémmiñam di leeral ni yëfe demee Adji wax na bés ba muy njëkk bés Ousmane Sonko ko Ousmane ko naawal ko da laa gisee fital yi tiit laaj ko lii lan la ci la ko Ousmane Sonko tontoo ne ko su may génn te ànduma ak samay garde corps damay yore ay fital ndax may nit ki ñu a soxla ci réew mi may ki ñu a wër may ki ñuy gën bi ma ko jànqalaa ci ma forcé ma ci suuf jël loxoom ci la gisee ne jànqalaa mu dévergé ma ak bi ma ko doon maasee sotti ma ko sëy tëddee na ko lu dul benn du ñaare li mu ko tëddee ëpp na fukki yoon am na ci bés boo xam ne ci biir jacuzzi bi la ma ko defee aji sar ne Ousmane Sonko dem na ba wax ko ne ko xale bu jigéen bu mel ne yow doonub jànq fees dell su la njëkkoon a xam yow lay ñaarale nee na li may am ci salon bi su ko mënoon a am ci samay jabaru kon du ngeen ma gis journaliste bi ne ko lu tax mu wax la loolee mu ne leen ndax ca këram ibaadu gi mu fi woote moo tax du fa mën a def yenn lii quotidien nañu maasekat bu jigéen bii di Adji jël na kàddu gi démb leeral viol ak menace yi muy tumal Ousmane Sonko ko violé la ñàkk Le Quotidien yéenekaay bi nañu Adji Sarr nee na mi ngi baalu àq Sénégal gi lu ma yoon may ma jël Adji Sarr ne Ousmane Sonko neewoon na ma lii ma lay def soo ko waxee kenn du la gëm dañu naan ab complot loola rek mu ne it bu Ousmane Sonko taxawee waat alxuraanul karim ne musuma tëdde bu keroge man Adji dana retirer sama plainte sour soo nañu Adji dëkk na Ousmane Ousmane Sonko nee na man waat na moom Ousmane Sonko na taxaw waat ci alxuraan ne def dara mu ne it ba mu waxee ab patronam di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ne ko dama ëmb li ko patron ba njëkk a wax moo di xanaa Ousmane Sonko moo la ëmbal loolee bettu ma mu ne it ba ñu demee gendarmerie ci kanamu capitaine Touré la ko Ndeye Khady Ndiaye nee na yàq ëmb bi ne jël coca cola boole ko café ngir yàq ëmb bi yéenekaay bi nañu waat na ci bàmmeelu ndeyam a gis Macky ko a séq ak man dara ma retiré sama plainte jooje Adji wax démb moom la journal Rewmi Quotidien xëy ci xëtamu njëkk journal La Tribune moom it xëy xibaar bi ak kàddu yi ci xëtamu njëkk bind ne Adji Sarr défié na Ousmane Sonko nee na su Ousmane Sonko waatee ne musuma tëdde bu boobaa dinaa dem retiré ji sama plainte Les Échos nañu démb ca wax ja leeral na it ni moom Adji Sarr musuta wax ne Ousmane Sonko da koo tiimale ay fital dane Ousmane Sonko dafa tekki ay fitalam te ko ci taabal ji bi ma bëggee tëdde mu bañ ci la ma joxañee fital yi ne ma ndax gis nga lee kon nag bu ñu ñaar ak ñett dégg tëddal ma tëdde la Adji ne ci la ma Ousmane Sonko xojee tëral ma ci suuf bi ma koy saraxu moo di yaakaar nga ne occasion bu mel nii dinaa ko rate mu ne bi ma capitaine Touré laajee kan moo la ëmbal dama ne ko Ousmane Sonko moo ma ëmbal Adji Sarr mu ëmb nan la war a mel l'observateur nañu mu ngi nii ubbil yéenekaay bi boo xoolee page 6 bu journal bi danga fa gis photo Adji ak biiram ma nga fa sol ay yére yu yaatu ngir nëbbu ëmb bi